Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn waaw salaamaaleykum euh, internautes yi nga xamante ne yéen a ñuy suivre si seen chaîne bu euh, Tawfekh Production ñoo ngi fii ci euh, jumaa ji gis ngeen mbooloom li nga xamante ni la ñu ñu wëre lépp ci li nga xamante ni moom mooy safar comme ni ñu ko gisee rek li nga xamante ni moom mooy dëkk bi xat na lool li nga xamante ni mooy mbég ak ki nga xamante ni mooy Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xanaa dañuy dem dugg ci jumaa ji rek daal di xool li nga xamante ni moo fa jot am ci ay ziar daal lañ koy dëttal lépp ci seen chaîne bi nga xamante ni moom mooy Tawfekh Production fii ci Touba Mbacké ci édition wu Magal 2019 jërë ngeen. Cheikh Dieng ñu ñëwaat fii ba léegi ci euh, jumaa ji li nga xamante ne moo ñeel wàllu màggal gi ñu ngi si biir euh, bërëb yi nga xamante ne moom la mbokk taali bi ñëw di ziar si Euh, ci li nga xamante ni moom mooy euh, màggalu Touba bu 2019 euh, donc chers internautes c'est ce qui ne comprennent pas la langue nous ici à Touba dans la grande mosquée juste pour faire le constat de ce qui se passe actuellement à Touba et dans ses alentours vous voyez que l'affluence est tellement grande les gens sont là actuellement pour faire le ziara auprès des donc qui se trouvent dans la grande mosquée que ce soit de euh, Seigneur Moustapha euh, Serigne Salou Mbaké. Nous allons euh, juste prendre la, euh, donc l'intervention des pèlerins ou bien des talibés qui sont là juste pour prendre part à ce grand événement qui est le grand Magal Touba comme ni nga ko waxee rek sànq ci français liy jéem a jege mbokk talibé laaj leen Euh, seen euh, gis-gis ci li nga xamante ni moom mooy euh, màggal gi lépp li nga xamante ni moom moo ñeel lu mel laaj leen seen xalaat naka lañ gisee màggal gi ak seen mbébép ci bëri yi nga xam ne dañuy ziar si xanaa di a jege rek yenn ci yi nga xamante ni ñooy taalibe yi laaj leen seen gis-gis ci moom mooy màggal ñu laaj rek salaamaaleykum jërëjëf sëñ bi ñu fëri sant yàlla bu baax na ngeen def maa def naka it alhamdulilah sant yàlla bu baax Ali Niang maa ngi ko Banjul waaw dama ñëw ziar si waaw ziar si dañ ñëw fii rek nag sant yàlla sant bu wér sant bu wér rek gannaaw sant rek gannaaw ndax xewal rek jërëjëf Serigne Touba Khadim Rasoul gis ngeen li nga xamante ni moom la gars yi wax ba léegi bokkaan waaw sant bu wér wér ñu ngi sant sant Serigne Touba baax a baax a baax ñëw ziar ngi jógee ba wàkk nguuna ñëw fii di ziare jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba li ngi noonu ko rek di ñaan yàlla suñu borom yàlla dooleel ko ba mu yeggale yan bi di ñaan yàlla taw féex di ko ñaanal bépp mbokkum julit yàlla defal la jàmm yàlla def fi jàmm ci barke Seydina Muhammad yàlla nañu yàlla doolu sutur man euh, maa ngi dem ci bërëbu sëñ Muntala ba ma pare dem sëñ euh, Abdou Khadre wër barab yëpp ziare sëñ Saliou waaw ziare ñëpp rek daal ziare sëñ bu mag bi di ñaan yàlla taw torop trop ci liñ ko fekkee di ñaan yàlla fekk ko ay at yu bëree bëri bëri bëri di ko ñaanal ñëpp ci barke Seydina Muhammad yàlla yàlla dafa jàmm. ñu dëkk Ngor Ngor man Awa. Ah, Touba moom macha allah mbooloo mi takku na lool ñu sant Serigne Touba wér lii yëpp moom la. am nañ tuuti jafe-jafe mais moom instant yi moom macha allah moom ñu ngi sant yàlla bu baax rek bi teg nañ ko si yoon waaw Serigne Touba moom jaral nañu lu ne macha allah. soxna ah, ah, Aya rek. ah kontaan rek moom kontaan rek. waaw. Ah, xaw na xat tuuti moom waaye sant rek sant yàlla moom sant. gi moom boo dégg yàlla liggéey bi trop gan ñi ñëw si jàmm di ñaan yàlla defoon ak yokkute. sëñ Tuubaa moom ay tànkam amul ay yoonam amul tànk ginnaaw sa kaw sa kanam rek ba dégg yàlla saa fi ñëw gis loolu yëm saa fi rek gis loolu yëm si Tuubaa Mbàkke di ñaan suñu borom nag.